président la république ku ko xam ku ko pratiquer xam ne koo xamante ne Sénégal dafa nekk ci xolam li fi da li xew fan yi mhm. ku mu leer xam naa neexu ko neexul kenn boroom kër bu li dal sa biir kër du la neex mais ci tekkam ci teeyam moom moo tax mu génn def communication boo xam ne dafa dalalaat mhm. pour la première fois ñu gis biir conseil des ministres ñu filmer ñu jóg def une minute de silence man maa ngi koy doo ko gis loolu pour wane ne que Sénégal président de la République mu ngi leen di jaale loolu du du lu yomb ba pare communiquer biir conseil des ministres d'habitude mos loo dégg ci biir conseil des ministres bu ñuy wax mosoo ko dégg pour la première fois nga dégg président di wax te ba muy wax moo doon jaale Sénégalais yi mhm. pour wane nekk donc vraiment loolu li dal sénégalais yi ci moom muy borom kër la njëkk moo ko njëkk yëg. Mhm. mais nag dafa fàttaliwaat li nga xamante ne mooy kenn réew mi moom mooy lu mu mënti doon it stabilité Sénégal moom moo jiitul lépp. Mhm. quel que lu ñu mënti am ñun lu luñ ci mën a mer stabilité Sénégal moom moo jiitu te moom mi nga xamante ne stabilité Sénégal ci ndoddam lañ ko rek mhm. kon moom la ca war ak la mu war a def lépp pour que mu am stabilité muy dialogue. muy force restera à la muy waxtaan ak kilifa yi waxtaan ak ñi euh, ku jegi lépp moom nee na ubbeeku na pour def ko te waxtaan fàttaliwaat na ko ci biir euh, ci conseil des ministre bi ba muy ba ñu ci waxtaanee yépp ba mu génnee wax na ci loolu mu leer kon defe naa nag nit ñi war nañu gën a dal déglu président la république nee na fii suñu paree li ñuy wax nii moom mooy dialogue bi moom mooy pencoo bi nga xam ne moom lañuy def fi mu ne nii suñ ci weesoo ba ñëpp indil ko ko moom dina génn waxtaan ak askan bi lu su boobu jotee ba ñi ñi wax ñi ñi jubóo mu génn dina wax ah suñu waxee nag nit ñi nañ xam te Sénat incha allah xam naa ne dina dalal dëkk bi d'accord